yàlla daf ma may ma nekk doomu sëriñ muy Mawlana Cheikh Ibrahim waaye damay wax mbokk yi toujours ne leen doomu jaan de jaan rek la mën a doon ndax ku màtt rek danañ la lukk far force dangat day dugg waaye nag nit mun naa préféré mënoo fexe yow mun nga prefere waaye mënoo fexe ba génn ci sëriñ gi man maa opté nekk koo xam ne homme d'affaires la génn nekk nit koo xam ne ci nitu àddina ku ma xam xam ma ci sama dund ci zahir ku amoon fit laa lu ma neex dund naa ko ci àddina waaye nag la Laxdari wax rek laay wax nadamu ala ma faat wa nahiyatu laa yaudu illa ma baqiya min umri la nga paase sa yoon nekkatu ci ndax soo xasee ba tuub ci yàlla liy nekk ci sama kanam rekk laa gëm muy yàlla man yàlla moo nekk ci sama kanam ku yaakaar ne sama doom bi nga xam ne su ma ko juree su deful lu dul yoon lu neexul yàlla dama koy teg ci teg li nga xam ne moo neex yàlla lu tax ma wax loolu mooy waxu aji saar bi laay ñëwaat parce que nit ñaa ngi ci média yi di réeral xelu nit ñi parce que nit sooy xeex dëgg dinañ taxaw ci dëgg googu yow tamit nuñ la faagaagale muy nitu seytaane yi di wax loo xam ne du dëgg wala ñu sosal la yaakaar damay wax ne média ñu ma tiim su yaakaaree ne yéen ñiy wax yéen nguur gi yaakaar ne taalibe yi dañ maa topp ma wax leen benn jënduma leen fayuma leen na leen kaay leen topp ma benn bu njëkk ñaareel bi xawma sax luñ ma toppee du xam-xam bu ma leen di wan waaye ñetteel bi jël naa ndaw defar ko ba mu baax teg ko ci yoon mu jëm ca kanam sante yàlla ci loolu te mënoo leen a wax a wax a wax a wax même soo leen ma fekkoon sax firme ma ci kaw jigéen du tere dana am taalibe yoo xam ne danañ la bëgg te yàlla tax topp la waaw man may jullit di doomu jullit sama baay ñépp xam nañ ko soxlawul ma koy présenté mu xeexal lislaam maam Cheikh Ahmadou Bamba sama maam xeexal lislaam yàlla may ko lim ko may ci àddina ma gis maam xaaj Malick ma gis ñooñu ñëpp ak nañ def waaye su ma toogee man gis loo xam ne ay fen la te mu nekk sama taalibi dama ko war a denc man ëllëg ma am néegu safara ci àllaaxira ci ay fen pour te man ma ne damay jël ay nit pour indiquer leen teg leen ci yoon siraatal mustaqim waa naka lay gisee fen man ba pare taxaw na lii dëgg la jël fen dëggal ko billaahi wallaahi tallaahi fii laay waxee ndax fii sama dëkku baay la samay dëkk mbokk taalibe la fii mooy kër yoro dëkk alaaji Mamadou Seynabu su fekkee ne man Adji Sarr ma ne ma lii mu nekk ay fen la yàlla bu ma àgg Kaolack tey fii ay quelques jours dingeen dégg audio yi te dinaa ko génne ragaluma dee kenn mënuma rey kenn mënumaa rey ba may dawal sama oto man kenn maa jóge Dakar samay àndandoo ñoo ëpp doole foofu nguur dama bëgg ñu tënku ci dëgg te xam ne ñun ay nitu daara lañ am na ci kenn koo xam ne nee na ma su fekkee xaalis nga bëgg kii xaalis moo tax muy wax bëgg a dóor barke Cheikh Ibrahima Niass barki démb yàggul dara hôtel Méridien lañ ma tegal cent millions du tudd ñooñu cent millions lañ ma tegal soxlawuma ko ndax man duma doomu sëriñ boo xam ne ba ma juddoo ba léegi musuma laaja àddiya maa ngi koy wax ci kaw te sama vidéo yépp chaque jour ma wax musuma tukki fenn laay tukki mooy Nigéria gàmm la quatre jours la quatre jours laa fay def cinq jours mun a génne une semaine hôtel ba gàmm ga gàmm ga hôtel ba hôtel ba aéroport xaw ma sax mbedd yi nu mel Europe laa xam ak Amérique yooyu laay tukki mais damay wax toujours ne kenn ci sama muqaddamu bàyyi su fekkee mus naa laa wax yónnee ma sama àddiya man nga leeral ko te maa ngi waxaat ci kanamu kebaraay ne bépp ministre ak bépp maire boo xam ne mos naa dugg sa maire yi ñaan la ndimbal lu jëm ci man wala wax la sama soxla taxawal nga fen loo ma xanaa loolu leer na kon gëwuma yooyu kon nguur gii di wax xam nañ laa ak ñee di menacer di wax ak di ñàngam maa tey am here man la aw ma ragal aw ma stress nekkuma sëriñ yooyu nga xam ne dañoo am complexe ñu wax leen dara non non non aw ma stress lu leen neex wax leen ko ma jël ko waaye du tere dëgg mooy dëgg su Sonko defoon moom tamit mu wax ma billaahi wallaahi tallaay mën a ko nekkoo ci dëgg waaye moo ma nettali tëgg diil bi te li ma leen di wax nii ay fan di ngeen ko dégg ma def vidéo yi teg ko ngeen di dégg ngeen xam ni baay Mbaye Niass fenut fabriqué kii doon wax aji saar la man ak moom ñoo doon wax jaare naa ko ci wàllu xaalis nettalil na ma ay fen ci liñ nekk ay fen la su fekkoon tamit kenn ci samay mag moo ko def tamit nii laay taxawee wax nee naa leen li sama kanam laay wax li sama gannaaw sama yoon nekku ci yàlla laa gëm Cheikh Ibrahima Niass bëgg mbooleem ñu baax ñu fi nekk kon fit gi ngay wax mu ngi ci man te duma musa ragal